ginnaaw bu sant yàlla julli ci yonent bu tedd ba sunu kóolute yaakaar ci Maulana Cheikh Ahmad te di ko jaarale ci sunu bunt ci moom Cheikh Mouhamadul Fadil Mbakke ak sunu kilifa bi nga xam ne moo dox suñu diggante ak ñoom ba ci Serigne Ahmadou bi nga xam ne moo fi teewal sëriñ bi euh, balaa ñuy tàmbali. am nañ aaday saa yu ñu teewee ci jataay bi dañuy tàmbalee suñuy kàddu ci jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadilu te ñaan képp ku koy dégg nga wax ko ba ci ku koy seetaan ëllëg ci rajo bi wala ci télé bi wala ku koy déglu ci rajo bi ñu ngi ñaan képp ku déglu kàddu rek nga sant leen Cheikh Mouhamadul Fadil jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadil alhamdulilah jërë ngeen jëf yéen tamit. dañuy tàmbali kàddu yi man samay kàddu ginnaaw bu sant Serigne Fallou boobu bu jàllee lépp ay cant rek lay doon jëm ci mbooloo mi nga xam ni yëgal naa leen ne dama jàpp sant Serigne Fallou bi sàngam ñaawandi ci ak man ak nuñ ci mën a ànd rek tey bu ñu santee Serigne Fallou ba ñëpp ba noppi ñoo ñi amal naa leen ak cant cant gi nag dama koy tàmbalee ci ki toog jataayub cheikhul xadim muy cheikh mahamadul muntaqa di ko sàkkul ñaan ci mbooleem fa ab taalib bi nekk wala fa ab jullit nekk ñu ñaanal ko mu yàgg fa téwér moom njabootu borom Tuubaa gépp yëgal nañu ko bis bi mu taxaw ci taxawaay bu rafet jël ak njabootam yebal leen fi ñu teewal ko fi ci njiitul cheikh mahamadul muntaqa moom cheikh mahamadul moussa fadilu ak sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ bi sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Basiru Mbàkke feneen ñoo koy sant bu baax di ko seedeel képp ki dégg suñu kàddu ñoo ngi sant it alxaaji Abu Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal demoon nañ fa yëgal ko bis bi mu wax ci wax ju rafet ñaan ci yebal fi doomam Cheikh Mamadou Fadal tey jii ku na xam ne xat na ci moom ndax dafa taseeg ngan gi mu doon defal sëriñ Cheikh Awa Balla njaboot suñ Fallu yu bari ànd ci ak moom waaye terewul mu jël ndaw yebal ko fii ñu fekk si jaboot gi fi ne bis bii nag tey xam naa day doon barkeelu rek ci bisu Baye Cheikh boobu ndax yàlla moo dogal ñu daje te Baye Cheikh doon suñu kilifa doon suñu sëriñ doon suñu waju kon bis boobee day doon kilifa ci bis bi doon ab sëriñam doon waajuram kon bis bii day doon barkeelu ci bis boobee rek ñoo ngi ñaanal sëñ Abo Mbàkke moom ñu mu yàgg ci jotaayu Cheikh Mamadou Fadil bi lool ak njabootu sëñ Fallu gépp di siyaar ak sant moom Cheikh Mamadou moom Serigne Fallu Serigne Bachir doomam dafa ma woo sànq ni ma sëñ bi daf laa sàkkoo jot téléphone fekk boobu maa ngi ci ay nit waaye ma nit ma ne ko na muñal mu fi ak benn minute wala lu ko yées ma fexe dugg foo xam ne lu ma wax danaa ko dégg ndax bëgg bu muy wax ak man ma koy laajaat li mu doon wax waaye fi ñu ko doon waxee rek am na oto bu fa jege woon <coughs> ma dugg ci biir oto bi wax ak moom ndeysaan moom it mu sant lool te ñaan lool ndax ñoom amuñu ku ñu ku dul Cheikh Amadou Fadal te lépp lu leen ci waay woo daañu daañu la ci si ak nañ ko mën a nag ñoo ngi sant bu waxtu di ko ñaanal mu yàgg fi te wér xaw mel ni ko jafe-jafe tuuti ci wax waaye ko jéggal sëñ Abdou moom it mi nga xam ne mooy sama la di sama buntu ci Cheikh Mamadou Fadal di sama kilifa ma jox ko sama bopp doxale ko sama diggante ak sëñ Fallu doxale ko sama diggante ak sëñ Tuubaa moo fi jëkk xëy si ci suba yëkkati fi ay kàddu ñaan fi ba egg si bi ñu toog def ay ñaan ñoo ngi koy sant bu baax te di ko sàkkul ñaan moom it Cheikh Mamadou Mourtada moom sëñ Fallu teew na fi sëriñ Aliou Mbacke am sëñ Fallu teew na fi alxaaji Cheikh Oumy Mbacke sëriñ Ahmadou Rafaan yi moom sëñ Abdul Xaadir sëriñ Jiili moom Cheikh Mamadou Moustapha Fadilu sëñ Abdul Ahad moom sëñ Abdul Karim Cheikh Moustapha moom Cheikh Modou Bachir sëñ Abdourahmane Mbacke moom sëñ Modou Mbacke Darou Manane sëñ Moussa Mbacke moom sëñ Abdul Baaxe ñi ñu tudd nag day doon mandarga rek ci wane ne njabootu sëñ Tuubaa gépp teew nañ fi waaye tekkiwul ne ku ñu tudd dafa ëpp xéemu ku ñu tuddul wax dafa mënta ñàkk te booy wax fa aw nga tudd ay rek loolu moo tax ñu tudd ñooñu waaye ñu ñu tuddul ni ñu sante ñii ñu tudd noonu lañu leen sante ni ñu ñaanale ñii ñu tudd noonu lañ leen ñaanale ku ci déggul sa tur nga jéggalu rek waaye du ñàkk laa teg barab du ñàkk am yitte ci yow ndax lii toll na ci ñun foo xam ne képp ku ci def itte la ak du tëj tuuti tuuti ci yow rëy na ci ñun kon nag ñëpp lañ sant soxna Mbène Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine mu mag nga xam ne sama dëkkandoolu fii maa ngi koy sant bu baax te di ko siyaar bu baax te di ko di ko ndokkeel bu baax yebal na fi doomam soxna Amina Diop mu teewal ko fi ku ne xam na ni jëm na ak mag ba tax na yu baree bari mënalutu ko boppam njaboot gi ñoo ko ci féete waaye wóor na mën su ko mënoon moo fi jóol boppam te loolu la ndaw yi bi ci wàllu waxtu nekk loolu la ñuy wax kon ñoo ngi koy sant bu baax di ko siyaar bu baax di ko ndokkeel bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi te wér soxna Mbène Mbacke ñu gën koo xam soxna Mbène Sofi moom sëñ Falilou teew na fi soxna maam Bousso soxna maam Say soxna maam Mati mi fi jóge léegi soxna moom yi moom sëñ Abdul Xaadir ñu gën koo xam soxna moom baax baay soxna Ami Mbacke moom sëñ Ibrahima ab sutu ànd ak soxna Astu Mbacke soxna maam Jaara Mbacke ak soxna maam Fatou Mbacke ñoom itam ñu ngi ci jataay bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen sant te nuyu ñëpp ñu ñu fi tollool ci jataay bi waajtaayu bis bi ba ci bis bi di beral ak cant waa kër Cheikh Abdoul Fatah sëñ Fallu ñi nga xam ni ñooy sama doomi sëriñ doon samay kilifa ak ñi nga xam ne maa leen féete ak mag waaye ñoom ñëpp ku ci nekk bàyyi leen jàpp ba ñu jàppee bis bi ba léegi loo ci xam ci lu koy jagal luy tax mu mel niñ bëgg mu mel ko nga jàpp ci sa kem kàttan ba tey jii ñu xëy si ànd feek ñun yendu fi ñu ko man ñu ko mënul ñëw ca ngoon ba léegi ñu nekk fi ba fii ñuy wax ak yéen ñu ngi di toog ci jotaay bi ko xool ko xool gis leen ci njiitul Cheikh Mamadou Lamine mu sëriñ Baara ak Serigne Falilou Serigne Khadim mi nga xam ne mooy borom kàddu gi si Mourtala doon yëkkati léegi ak sëñ Mourou ak ñi demee na ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax a baax tey fedd li li ñu boole ak yéen lépp dafa si di ko rafetal ba fu soob suñu borom soob suñu borom gi nag jugub lu ma ji mu soob suñu borom mu tàmbalee mel na neneen waaye maa ngi ci jublu rek mu dund mu doon lu yàgg loo xam ne la koy dindi mooy ñu jóge fi yàlla na yeex waaye di nuyu jigéen ñi muy soxna moom yi soxna sooda soxna ab satu soxna benn ak soxna ndeyam ak soxna asu soxna ndey ñi boo bokkal ñëpp rek ñu ngi leen sant bu baax tey seereel mbokk mbokk yi fi teew yëpp ne li sëñ Murtala doon wax léegi rek moo dox suñu diggante ak ñoom man yàlla daf ma dimbule ndax lépp lu yàlla def ci man rawatina ku ma booleel su doon dama mën dindi duma ko dindi rawatina nag ba ngay xam loo xam ne mënoo koo dindi waroo koo dindi bëggoo koo dindi kon loolu moom sàmm ak rafetal da nga ci mën te xam naa ne li sëñ Aliou yu doon wax léegi rek li nekk ci man moo nekk ci ñoom ñëpp ndax kenn yéesuma ci dañ may gën wala ñoom ak man waaye kenn yéesuma ci kon nag li ma wax waxaar naa leen ko ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di ko seetlal seen baay bi toog bokk yi fi nekk yëpp mboolem daayira Afadu Cheikh Mamadou Fadilu nga xam ne mooy daayira lëkkale sëti sëñ Fallu yi mën naa ne ñoom ñëpp teew nañ fi bunt buntu kër yëpp nag njabootu sëñ kër sëñ Fallu seen njaboot teew nañ moo xam góor ñi la jigéen ñi dañ ciy tudd sëñ Galas moom Cheikh Mamadou sëñ Moussa sëñ Mamoor Cheikh Cheikh Mamadou Bachir Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal moom Cheikh Abdoul Aziz Serigne Cheikh ak ñi demee na ñoom ñëpp ci njabootu Serigne Fallou gi ñoom Cheikh Oumy ak Aji Baara xam ne bu ñu leen tuddee tudd nañ ñu Serigne Fallou jur seen waajur bu jigéen ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax ndax bañ jàppee ba léegi ñoom ñoo ko àndal di ko doxal ba agsi fii kon nag bu suñu kilifa teewee suñu bokk teew jaaru nañu seedal leen cant gi nga xam ne moo dox suñu diggante ak ñoom waaye waa ko sëñ Daam Atta Mbàkke ñu ngi fi sëñ laa Ablaay sëñ Murtala ak bokki bu suuf yi waa Gede njiital sëñ Baara Bousso ñoom Sidina ak ñoom sëñ Abdul Ahad ñuy topp bandaam sëñ Murtala loolu moom sëñ sëñ Jili ak bokk yépp ku lim doo waaye mboolem koo xam ne bokk nañu moom sëriñ bi bokk ak moom yoon wi te yëgal ko bis bi wala mu yëg ko ku ci mën a teew rek teew na ku ci mën teew yi yëg nañ ni amoon na yéene teew xay na ngànt moom suñ borom moo koy def ba tax na ku ci am ngànt it waaye na tooyee ci ñun sant gi ñëpp lañ koy sant maanaam ñi ñëw ak ñëw ñëpp lañ sant ndax jamono ji xat na xat goo xam ne sa bopp mooy tax nga xam li ci ñeneen ñëpp ñoo ngi sant ñëpp rek di leen ndokkeel bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoo mën nañu àndaloo liggéey bi ñuy ay. kilifa nekk di ay jëwriñ ànd kook ñu ngi ko àndaloon ñëpp tàmbalee ko ci Serigne Lamine Mbacke mi nga xam ne yaakaar naa ku ma xam xam na sama diggante ak moom koo ko xam moom it xam na sama diggante ak moom maa ngi sàpp maa ngi sàpp ci kilifa gi ak mbokkam yu baax yi mu dendal ñu ñaanalal ma ko te ñaanal ma maa ngi koy sant bu baax di ko seddal ñëpp Serigne Chouaïbou bu sama rakk nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi bu magal Tuubaa gi jàllee dañu def benn comité de pilotage boo xam ne moo yore liggéeyu cant gi ndax dem na ba toll foo xam ne fi mu nekk nii benn loxo attanatu ko faaw mbooloo ñoo koy mën a saytu moom nag mbooloo moom mu koy saytu moo ci jiitu moo ko Serigne Modou Mamour Niang waaye moom Serigne Khadim Niang Serigne Modou Mbacke Serigne nga xam ne moom ab taxawaayam ci man ak taxawaayam ci bis bi yaakaar naa képp kuy ñëw ci bis bi xam nga ko. sëñ Fallou Bousso moom sëñ Mbacke Bousso asukan ak sëñ Modou Rakam ku ñuy wax Mame Mor Wade ñu gën koo xam ci wàddu murit ak ku ñuy wax gas Mbay fekkam Njaay ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi nga xam ne ñoo taxawu bis bi ba lu ci nuru ab taar wala lu ci taaru seenu jàppale moo tax loolu am maa ngi koy seedeel ñëpp di sàkku ñépp ñaanalal ko leen askanu njaayeen nga xam ne ñu ma koy waxee waxtu bu nekk fa la soxna Ndey Njaay bokk ba boole ma fa ñoom ñëpp gis nañu leen ñu ci bari ñi mën a ñëwal seen bopp ñëw nañ ñi mënta ñëw am na kuréel bu leen taal boo xam ne su ma juumul ñu ngi ci tànt bi maa ngi leen di jottali ak sant ñoom soxna Ndey ci boppam it maa ngi koy sant bu baax te di ko sàkkul ñaan ci ñëpp ñu ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi te wéral ko moom njabootam soxna Maymuna mi nga xam ne mu nekk ca boppam soxna musli ak seeni rakk ñoom ñëpp taxawaay bu leen waroon ci bis bi rek def nañ ak seen soxna si la ci kër gi nga xam ne moom lañ dalee gi moom mooy wéttali moom mooy wéttali ci kër gi moom it sëñ Lamine nee na nañ ko yóbbante ak cant kon ku ci jëkk a jot rek mu fexe ba soxna si jot ci waa Xuddaamul Xadim nga xam ne ñoom it ci ñoo yoroon dama xamul kaaraange laa ko mën a tudde wala ñuy jubbanti dëkkandooy sëriñ bi wala ñi leen di fàttali li sëriñ bi di digle te ànd ceeg sunu waayur sunu kilifa sëriñ Hamza Dum Cheikh Abdou Lahad ñoom it am na ñu leen fi ñoo xam ne ñoo ñu doon jàppale ci sécurité bi ñoo ngi leen di sant bu baax di sant mbokki taalib yi nga xam ne ñoo ñu jàppale ci liggéey bi moo ci benn benn rek ñu mën a yóbbaale ñi ci des naa ñu tudd ku ñu wax nan la jaan nan la jaañ ñu bari dégg lañ turam te mu yor mooy defar was yeeg ya demee ni ñoom bokk ci njabootu sëriñ bi teel fee ñëw indi bagage yu bari jàpp ci lu man soxna Kumbel jóg bokk yëpp xam sama diggante ak moom Serigne Ismaïla Diop mu jóge Dakar ak Serigne Ismaïla Diop mu nekk Touba ak mbooleem ñi leen doon jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom lañ fi doon amal xam naa ñi muy tudd sax bëgguñu ma tudd seen tur waaye juñ ji rek laa ci jublu ngir ñu xam ne liggéey bi bu mel nii maa ci gën a tuuti lu ma def li ci ëpp li ci gën a rafet ñi may jàppale ñoo ko def te mooy ñoo ñu may tudd ak ñu defee ne ñoom di sant mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ wi def nañu fi liggéey bu am solo tàmbalee ko ci fan yi jiitu màggal gi ñu nekk fi féete fi mën naa ni dafa def liggéey yoo xam ne ñoom suñ fol bu soog ñu demee ñoom ràññeer nañ ko ba jottali ci ay cant ñoom wax ne naa leen naa leen naa leen naa leen leen sant bu muy bu muy sant ñu jàpp ci liggéey bi ndax ne ñoom liñ ci def <laughs> mënul ñàkk te mel nañ am naptaar kon nag ñu ngi leen sant bu baax jiital soxna Aji Njaay ak soxna Jàll Mbow mi nga xam ne ñu ñoo jiite wàll boobu ak soxna Mariam Gueye ñañ ko àndal ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax waaye di sant ñi nga xam ne ñoo fi jël kàddu tàmbale ko ci Serigne Saliou Niang Serigne Malick Sall Alxaaji Njaay moom Serigne Cheikh Ndine mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi fàttali ay tomb yu am am solo ci dundu Cheikh Mamadou Fadil ak i waxam Cheikh Mamadou Mourtada mu Sëñ Abdou Fatah nga xam ne moo jëloon kàddu ci turu njabootu Sëñ Abdou Fatah ci turu sëti Sëriñ Fallu yi ñoo ngi bu baax moom it di leen sant ñoom ñëpp waaye sant tamit presse bi nga xam ne dayo bu bis am bokk nañ ci ñu ko ko jox ndax ñoo ko yaatal ba ñëpp jot ci ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen sant bu baax imaam Babacar Diop bu Touba Mbacké FM ku ci jàpp jàpp jàppaloo jili ñëg bu TFM tamit noonu RFM bu Mbacké te ka ñuy wax sista Ndiobo su ma ko mën a waxee noonu eh, nga xam ne moom lañ doon jokkool moom it def na ci ak jàpp def def ci ak yaatal mam ngóoru lay bu làmp mi ngi fi dindi active bu soxna Ndeye Mbacké nga xam ne mooy ni ma koy waxee waxtu nekk sama yaay ju ndaw nga xam ne <coughs> taxawaayam ci bis bi yaakaar naa ni taxawaayu Ndindy Actu ak soxna Ndeye mi nga xam ne mooy jëwriñu Ndindy Actu ak ñu ko àndal ñoom Assane ak ñu nekk Ndakaaru di leen jàppale ci foofa ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ndax gis nañ taxawaay yi ñu taxaw ci kër Sëñ Fallu waaye di ko taxaw ci lépp lu njabootu Sëñ Fallu gi di yëngu ñu ngi leen ci bu baax a baax ñu ngi ko def direct saa Ndindy voilà nee na ñu ngi ko def direct kon ñu ngi sant ñu ngi leen santaat bu baax ci ci li jiitu direct bi ak ci direct bi si di sant Touba Info sëñ Fallou Ndiaye nekk ca bopp ba ak sëñ Mbacke Seye ak ñu ñu àndal nekk ci liggéey bi actu 24 ak seen actu 44 liggéey bu rafet rafet lañ liggéey ci bis bi ñoo ngi koy ñoo ngi leen sant bu baax a baax di sant nag daayira bi nga xam ne bu yëf yi amee fanweeri at ci seen loxo la jaara moom ak si foofu ni ko alaaji waxe léegi fanweeri at du fanweeri fan du fanweeri weer bañ ko tàmbalee ba léegi nag lu bari jaar fi ñu bari àndoon nag ñun liggéey bi am ci ñu génn àdduna ñu ngi leen di sàkkul njéggal ak yërmande suñu borom ak tawféexi sëriñ bi nga xam ne moom leen taxoon ñu daan liggéey ci daayira bi moo xam ku jege la wala mu sori ñoom ñëpp ñu ngi leen fàttaliku te di leen ñaanal bu baax di leen sàkkul ñaan ci kilifa gi am ci ñoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi àdduna génnuñu àdduna yàlla yàlla ko ci gaaw a génn waaye am na ñoo xam ne nekkatuñ ci dëkk bi am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk baay waaye nekkatuñ ci daay nekkatuñ ci daayira bi ndax jamono mooy doxe noonu waaye ak lu mën a xew rek ñu ngi leen di ci jëf yi ñuy jëf ci daayira bi ba léegi ñu ngi ñaan ci kattanu yàlla baaxam lépp luñ ci jële ci yiw ñu bokk kook ñoom mboolem ko ci mas a bokk boolu soob suñu ci njiital Abdoul Fatah Ndiaye mi nga xam ne mooy jëwriñ ji ci jamono yi ñu toll te doon jàmbaar lool ak mboolem ñu ñu ngi ci àndal bokki taalibe yi nga xam ne dañoo bawoo woon ñu ngi ci bis bi wala ñu nekk fa te ànd ko ak ñun ñu jóge Mbàkke Bawol ñu jóge Kaolack Thiès Tivaouane ak fu ñu mën bàyyi ko ak même ba ci ñi nekk bitim réew réew yu sore ak yu jege yëpp. suñu kàddu yu cant ëmb na leen ñoom ñoo ngi koy seeral sëriñ bi rawat naa ngi nag ñi nga xam ne ñoo tekk ñoo nekk Tuubaa liggéey bi nekk seen loxo ñu di ko saytu xam ne waaye mën a jógee boo ma ñëwee ñoom nga koy àndal kon day mel ne cant yooyu yëpp dañ koy teg ci seen loxo ñoom ñu jottali ñu ko di sant it daayirul turandoo yi sëriñ Fallu bi daayira turandoo Serigne Fallou yi ñu ngi leen sant bu baax ñëw nañu fenn ci délégation bu am solo yëkkati seen addiya def ko ci bis bi ngir sante ko Serigne Fallou bi ñoo ngi ko seeral Serigne Ahmadou dëkkandoo yi nga xam ne ba ma jógee gaar bu ndaw ñu fii ñu laa fa fekk ma ñëw ñu gàttandu ma dalal ma dama jàppale bu baax ci liggéey bi nga xam ne moom laa sumba liggéeyal sëriñ bi te tàmbaliwul bañ di ko gis yéene la ci liñ bëgg def nañu ñëpp ñaanal ñu tàmbali te àggale